le rendez-vous macha allah comme ni nga ko waxee ma lay fay Asma Khadija la seigneur et Saint-Louisienne maison. di nuyu euh, doomu Thiès le sage de la maison. Ah. sinon ah jërëjëf waay. oui waaw damay jéem rek jéem rek xam nga paraître bi aussi si la bokk. <laughs> ndax euh, ñi ñuy seetaan ñu mën leen a xam nga lekk boo koy servir il faut nga def ko ci plate bu jekk. lu ko may loo togg togg togg. am na ñoo xam ne boo leen tegalee ci yenn plate duñ ko lekk. c'est vrai donc il faut loolu ci lay bokk. Mamadou Fofana ñu koy nuyu bu baax. Mhm. Euh, le futur maire de Wakhinane Nimzatt les hommes de l'ombre ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy euh, euh, teewlu fajar gu jot ñu nekk au rendez-vous amuñu seen fay ci kanam tuuti ñu yegg ci kaw tribune bi xool actualité bi fu mu toll. man ak yow bokk ñu kër di bokk ay couleur plateau tamit. télépathie dañoo bëggante. ah waaw ça c'est vrai dafa am façon bu ñu koy dundee. c'est vrai ku si nekk ak noo koy dundee. ça je je prends je prends en témoin Simon Pierre Faye. sama amul day jéggi tali ñëw sa sa kër xool loo sol après mu ñëwaat ci man. kon neex na ba dee neex na ba dee macha allah alors waxtu wi bu jotee ñun dañuy sóobu ci waxtaan wi ci li gën fës ci ab actualité euh, kon nag liñ fi gën a nemmeeku ci li gën a fës mooy Simon Pierre Faye lettre bi nga xamante ni moom la président Bassirou Diomaye daal di bind waa euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, yenn service état yi nee nañ nañu jubal doxalal te képp ku jubalul nañu fexe ba mën am aisance su boole ko euh, lool peut mën na indi solution ci lépp lu ñuy dégg ci euh, dañ koy waxatee deniers publics yi nga xamante dañ koy caxat caxatee. d'abord comprendre euh, ban esprit la waxee. Mhm. parce que c'est appesanti sur une loi effectivement qui est là. Mhm. qui protège en même temps les fonctionnaires et agents de l'État mais également yu leen di rappeler seen ay obligations ak seen i liggéey. Mhm. ci contexte boobu pour man euh, xëy na président dafa ñëw bees rek bëgg fàttali fonctionnaires yi ak agent de l'état bi seen role mm. li ñuy xaar ci ñoom la tax ñu recruter leen ba dénk leen ay liggéey. Mm. mais sinon euh, ça doit être de manière euh, affaire boo xam ne fonctionnaires yi moom la ñu war a nekkee d'abord tous les jours. Mm. et c'est bien de de le rappeler. parce que moom également aujourd'hui il est fonctionnaire il est à la tête de tous les système donc moom moo njaboote ñëpp mm. mais. président dafay sukkandiku ci benn administration ay agent ak i fonctionnaires yoo xam ne ñoom ñooy def le travail à la base non seulement def le travail à la base mais lépp li askan wi séentu ni ki service ñu war ko ko defal wala mu soxla ñëw laajte ko ñu defal ko ko il faut également rappeler tout ça au fonctionnaires ak agent yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal nguur gi et euh, c'est c'est c'est d'ailleurs très bien parce que puisque liggéey lañu woote il faut que nit ñi ñëwaat également ci la culture du travail. Mm-hmm. non seulement dans l'administration mais également dans le privé. Ah. mais dans l'administration parce que yi ñuy gis léegi actuellement nii. Mmh. Asma je te garantis que ne am na ay fonctionnaires yoo xam ne ñu ngi seen i kër xëyaguñu. te alors que heure bi war na la mën a fekk alors que l'heure de travail c'est 7h30. c'est vrai mm-hmm. mm-hmm. di nga gis ñoo xam ne ñu ngi encore seen kawlal di nelaw. pendant que ku mel ni ma mbay ku mel ni Asma ku mel ni Simon. mi ngi taxaw sa buntu bureau. wala sa buntu service gardien ba ne ko directeur mi war a signé ñëwagul. Mhm. wala ki yor sa dossier ki la war a signal yeggseegul mais loolu teg ko fan. dañ ko fi war après on va prétexter oui des embouteillages oui euh, euh, ayu kenn xamul. Mhm. alors que foofu d' abord la ñu war a njëkkee moi j'ai connu quelqu'un c'est d'ailleurs notre frère il est il du village je ne sais pas jusqu'à il était encore le le le chef de département à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar mais lui il se faisait violence pour être la lui-même à sept secretaire bi ci boppam nee na ko bés bu ma ñëwee fekkuma la fi à sept heures nga ubbi bunt bi maak yow dinañu am problème et c'est comme ça qu'il a réorganisé tout le département bi nga xam ne moom la yoroon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parce qu'il considère qu'à sept heures trente pile moo fay mi taxaw ci bunt bi sept heures bu jotee bunt bureau de dafa war a ubbeeku yow nag yaa xam ban heure ngay xëy yaa xam ban heure ngay toog ci bureau bi maquillé wu defar sa sa euh, manicure sa yooyu <laughs> noonu mais 7 h na la fekk nga ubbi bunt bi ñëw toog sa bureau di xaar koy dugg si. <laughs> mais bul ne les gens ne vont pas venir à 7h que ma ubbi bureau bi et c'est comme ça qu'il a réglé le problème. c'est vrai. donc exemple yooyu la nit ñi war a mën a copier. ñu bëri actuellement ni xëy xëysee gu ñu nekk ñu seeni bureau et c'est la même chose boo xam ne moom moo commencé toucher maintenant le secteur privé <laughs> parce que liggéey yow du moment que yaa ngi doon wut liggéey am nga ko. Hmm. gouvernement bi recruter la di la fay salaire te salaire bi mu lay fay sénégalais yépp koy cotiser di la ko jox. Hmm. mais pourquoi s'autoriser des retards. Pourquoi s'autoriser des absences injustifiées? Pourquoi demander de l'argent quand tu dois pouvoir signer un papier boo xam ne usagers yi ñoo ko moom? Pourquoi euh, nga nga war a toog ñu lay saraxu pourquoi tu te fais désirer parce que tout simplement yow yaa yor signature bi. très donc il faut que nit ñi ñëwaat à à à à cette philosophie l'autre aspect bi mu souligné dans dans sa lettre c'est que avec cette loi qu'il a qu'il a fonctionnaire effectivement boo nekkee ci service boo gisee lu def wut. Mhm. loo xam ne moral nangu ko wala bokkut ak li nga xam ne moom la ñu soxla ci wàllu yorin gu rafet ci liggéey bi. Mhm. tu as de le dénoncer. nga dénoncé ko mais tout en dénonçant la loi également te protège toi qui dénonce mhm. mais nag nañu moytu parce que sinon on sera dans un climat boo xam ne chacun surveille l'autre mhm. chacun surveille l'autre oui c'est bien mais peut-être mën na am benn revers de la médaille boo xam ne xëy na du gënal ñëpp mhm. parce que tout le monde va se sentir surveillé comme c'est arrivé dans dans dans certains pays à une certaine époque de la guerre froide mais yow ton voisin te surveille peut-être même celui qui rend compte à la police ou au renseignement de tes activités quotidiennes de ce que tu fais de qui tu fréquentes de qui tu appelles au téléphone dans les services peut-être que dina am euh, euh, lu ci baax très parce que bu fekkente ne dans les service publics ku ci nekk fa nga nekk sa morom mu ngi lay surveiller xëy na di nga jomba def yenn yi xëy na tam dinga nga góorgóorlu ci rendre également service bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci yow en attendant merci beaucoup alors euh, euh, Mamadou Fofana dafa mel ni bataaxal bi président jomaa euh, yi bind mënees nañ jàpp ni moom pour moom bonne gouvernance li koy doxal mooy liggéey ak rigueur liggéey ak rigueur taxut nga loolu ñaari mbir la yu bokk. nit dina mën a liggéey rigoureux ba pare dëng. donc. Mhm. woote bon gouvernance c'est normal pour quand nit ñi mën a jukkowoo lu baax. Mhm. certainement c'est euh, dans ce sillage-là le le président Bassirou Diomaye Faye di woote mu di wàllum droiture wàllum exemplarité. ak surtout li nga xamante ne nii justement moom la xaar. Mm-hmm. c'est vrai que administration sénégalaise bi quand même. Mm-hmm. bëri na reproche yu ñu leen mën a def. Simon évoqué na ko sànq mu jëm ci wàllum ay retard. Mm-hmm. ay absence. da ngay ñëw soxla kayit mais pour nga jot ko problème la. lenteur administrative yi. ay caprice su directeur yoo xam te ne nii bu leen neexee xëy si bu leen neexee du ñu xëy si. pour ñu signer également si moom mi ngi koy wax ñi ngi lay laaj xaalis de gauche à droite boo xam ne teguwul fenn pour quelqu'un boo xam te ne nii le contribuable sénégalais da koy fay loolu du yoon mhm. et justement c'est des comportements yoo xam te ne nii dañ ko war a éradiquer mhm. c'est vrai nee nañu wéy nañuy dénoncer mais man si dénoncer boobu noonu il faut ñu tey ci mhm. man peut à la place de dénonciation on pourrait aller vers des contrats de performance nit ki bu liggéeyee di nga xam bu liggéeyul di nga ko xam parce que yow sa bopp danga koy évaluer mm-hmm. et ces contrat de performance la moo lay mën a dimbali pour nga mën a évaluer nit ki xam véritablement ba xam mi ngi doxal liggéeyam wala doxalu ko mm-hmm. au delà de cela am na ay émargement yoo xam ne day am mm-hmm. ñi ñi ñi ngi koy def loolu également war nañu mën a permettre ñu mën a évaluer par rapport ak ponctualité wala régularité nit ki ci li nga xam te ne nii moom moo ko war ci temps de présence am ak ñoom seen. Mhm. mais boo duggee ci dénoncer mais xam nañ ne sénégalais yi soxor gi ak iñaan gi nu mu fi mel. Mhm. nit mën na jóg ne mankat kat damay dénoncer diw te ala boo demee ba ca biir da ngay xam ne ne la ca la mu wax lépp dara du ci dëgg. dara amu ci et loolu da lay retardé. loolu moom mooy problème bi. Mhm, yàqalante bi wuy yàqalante bi au toi que je m'y gi mooy problème mu Sénégal. Mhm. Mhm. parce que am na ñoo xamante ne nii da ngay nekk ci place ñu iñaane la fa commencé la wéy di wax gauche wax droite xam nañ ne fii les bruits de couloir et autres nit ñi. xam nañ ne Sénégal wax rek nañuy def suba ba ngoon. kon donc ay dugg ci ay dénonciation man ànduma ci loolu noonu ay nañuy dénoncer nit. oui parce que lii ak la parce que boo ci duggee it ay problème la lay indil te boo demee ba ca biir la nga gis moom mooy nit yi la muy wax lépp dara du ci dëgg mhm. et donc oui ay tension lay indi et dans les rapports nit ñi du ñu liggéey parce que ma xamee ne ne mambay mi ngi may bàyyee xel man it asma mi ngi may bàyyee xel man maa ngi bàyyee xel mambay mais les rapports là également boo moytuwul day tax ah, mais bien sûr mhm. parce que ku nekk dina méfier ci moromam mhm. ku ci nekk sax peut-être li mu waroon mënoon concéder moroomam dootu ko mën a defati et ñun ñëpp xam nañ ne l'administration c'est un travail d'équipe mais qu'est-ce qu'il faut c'est pour moo tax ma ne la à la place peut-être dénonciation mhm. ñu dem vers des contrats de performance bu ñu la joxee direction avec feuille de route bu leer nañ mais que tu sois évalué je sais pas ci les trois mois six mois un an xool véritablement si yaa ngi répondre aux aux attentes wala yaa ngi répondre justement aux aspirations des populations foog naa ne loolu moom mooy li gën a ah, peut-être ak yeneen méthodes yoo xam te ne nii yoo xam ne amoon na fi mu démargement. les pointages oui pointage ainsi de suite loolu peut-être avec ces contrats de performance dinañu mën a gën a dimbali. justement ñu xam euh, euh, la les valeurs intrinsèques aussi vous valez aussi vous voulez ku ci nekk. Mhm. ak li nga xam te ne nii ba xam ni ngi répondre ci charge wala responsabilité yi nga xam te ne nii moom nañ ko teg pour mu mën ko matale. en tout mhm. cas bokk na ci itam sukkaru kooru imaam yi euh, nekk na rupture boo xamante ni ñoom amal nañ ko à l'épreuve des vieilles pratiques républicaines Mame Mbaye. est-ce mhm. que loolu mënuñu koon bàyyil tamit imaam yi. waaw démb rek ñu ngi ci doon euh, waxan ah. mm-hmm. euh, yenn pratique wala yenn doxalin yoo xam ne mi ngi fi woon euh, ñu bëri doon ko rafetlu démb maa ngi koy expliqué ma ne que imam ci gox moo délé délégué de quartier si gox ñooyam dafa am ministère bu nga xam ne dañ leen ko dénk tey gox ba ñoom ñoo xam ñi woon ndimbal ñoo xam ñi yittewoo ak jàppale ñoo xam ñi nga xam ne tey mënuñu génn et pourtant ñoo ngi ci ay jafe-jafe seen i kër ñoom ñoo daan xaar bu guddi jot di leen li am ñu jël ko yónni ko seen doom wala ñoom ñu doxal seen bopp ba ca kër ga ne ko am jàppal ci nii donc kooku amaana lan koy jox mhm. nii suukaru koor wala ndimbal la koy jox mu bawoo ci nguur gi ñu war a dem ca néew di doole sarax la te sarax nag wax fa dëgg neex yàlla dina ji da ko da koo digle mhm. pas imposé mais dafa nekk lu ñu rafetlu day tax nga mën a jàppale néew doole ji man côté boobu fekkee lecture boobu euh, laa ci am maanaam jàppale leen ngir ñoom it ñu mën a jàppale néew doole yi mhm. jarul ñu koy dindi nañ ko def sarax rek parce que Sénégal réewum teraanga la mhm. bàkk boobu rek war naa ma tax ñu bañ koo dindi mhm. ndax teraanga nag si la lépp xaj jébbal la teraanga ngir teraanga boobu ñu la jox nga jox ko ñeneen ñu ko yittewoo yaakaar ne loolu waruñu ko mën a dindi peut-être ñu xoolaat euh, doxalin gi euh, avant may démarrer ci euh, revue de titre bi li doon wax sànq mhm. jubal jubbanti ak lan la woote ñett jubal jubbanti ñetti ji woote yooyu yëpp xam nga lan lay firndeel ñu xoolaat loolu yëpp ci jikko la jubal ci jikko la jubbanti ci ci jikko la loolu lépp ci jikko la mhm. donc jikko la bëgg ñu xoolaat ko parce que nag Sénégal toll nañ foo xam ne ñu si bëri ñëpp d'accord nañ ñu ne jikko yi dafa yàqu mhm. dale ko ci kaw ba ci suuf ndax tey jii Mamadou na man nga ko def tey njiit ministre man Mame Mbaye ak couleur gi ñu séq des médias boole ñu mhm. te du ñu tax xaatle ma nekk ah Mamadou man de amoon naa sama doom boo xam ne am na diplôme ma bëgg nga jàppaleel ma ko fa xam nga Mamadou peut da koy jël dugal ko ci biir te pourtant place boobu mu teg sa sama doom am na keneen ku ko mérité jàng na ma yor ay lijaasaam mais peut-être rus na maa wax mu jël ko dugal ko ci biir am ñu gis ay ministres yu nga xam ne seeni frais de mission rek fay na ñaata ñaata weeri salaire pour ñu génne rek de ñaata weeru salaire c'est vrai bu dañ leen koy euh, euh, tarif bi par jour la xoolal loolu ñu war ko génne mu nekk ay millions yu nga xam ne yow leer na ma mission ba nga fay dem wala ba nga fay def ak ah, ñi nga ànd ñëpp ñu mënoon ñàkk. kopparu Sénégal la ñuy génne jox leen na ko. mais terewul ñu ba léegi. ba ci nañ ko mais kan bi ñaata nit ñoo dem ñoo xam ne amuñu fa njariñ. influenceurs yi. te te ay jëwriñ yóbbu leen nañu waxante dëgg. Mhm. loo xam ne ñu ngi ko doon xeex. certes ñu ngi koy xeex mais ba tey daf fi des parce que dafa naqaree dindi cancer la ci ñun. mooy ñu defaraat ñoom même bu foofu mi ngi koy wax bi ñu demee assemblée nationale ñu ne noo li ñu daan joxe ci carburant lan. li ñu daan joxe dafa bari ci oto ni ñu koy joxe même entretien oto yi. c'était une yu bëri jéem a jéem nañ ko dindi. à un moment donné ñu ne administration bi tamit nañ xoolaat doxalin gi frais yi dafa dafa bari. Mhm. jéem na ko xeex mais terewul am na lu des ba léegi ñii fi ñëw dañ koy jéem a xeex mais terewul tamit gëw ma sax mu gaaw a dañ noonu parce que jikkooy sénégalais bi la pas ñëpp nag mais si niñ ko sañ a wax. mais nee nañ dëkk bi dafay ñëw di di metti ci kanam tuuti peut-être. redressement yi la dànqaafu la ñëpp de. dànqaafu la. Mhm. c'est li ñuy dund rek dafa metti mhm. li dund nii rek. Mhm. dafa metti loolu moo ñu yéegal ci kaw turbine bi. ak ministre bi ñi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum koom gi wàllum finance. nee na bu yeboo ñu waajal de. tartar gi dikkagul ndax tartar gaa ngi ñëw ci kanam. dèjà am na ñoo xam ne lu ñuy dund ne dafa sax metti mais nee na bee boo ñu waajal. Ah, ministre des finances bi waaw. moom lan la bëggoon moment difficile mooy la. nee na nous allons vers des moments très difficiles. eh. on a beaucoup de dettes. figure d' insistance bi ko si de waxul difficile rek de très difficile. et tout en rouge. difficile la ngi nii. waaye très difficile mi ngi ci kanam. Ah, xanaa kon tomb des animaux et des végétaux la naaru doon. <laughs> nee na dem ba xam ne xooleen foo leen tëdd dee sax di ngeen koy wër rek. ngir noppal ko ci réew mi. li ma doon xaar. ñoom ñoo nekkoon ci biti di critiquer. <laughs> waaw métti na na wax nañ ko ba fii. léegi métti na métti bi dañoo toll ci ne ñun lii la ñuy indi comme saafara. lu ko ah. gën a gaaw. moom wax ko waxagul saafara bu bëggee anticiper ci peut-être suba bu sottiwul nga ne waxoon naa ko. mais waaw. mais mais mais est-ce que vous ne pouvez euh, il n'y a pas une autre lecture de la situation certainement on a trop de dettes sénégalais bu ñu serrer la ceinture dafay tax xëy na ëllëg ñu prévoir. trop de dettes yow waxatuñ ko. non bor gi moom moom yow kii. bu bëree kay ça veut dire que 15000 milliards la Sénégal amee bor. ñoom bi ñu jël gi xam nañ li. 15000 milliards. ma ni cin bu naree neex. bu baaxee xëy. mais lii baax nii. xëy ñu neex de. <laughs> nañu waxante dëgg. ah wax discours bi moom la ñu dégg ba Macky Sall dem ak nguuram. waaw ñoom bu ñu doogee dugg ñu teniraat même discours. wala di gën a tiital nit ñi. man sama xel du dal. man de damaa tiit fu mu ne. c'est vrai. Euh, Oustaz Gueye bu 2STV ñu lay nuyu bu baax moom it ñun la jàkkaarloo. ça veut dire peut-être qu'ils n'ont encore la solution à nos c'est vrai qu'ils ont est-ce lañ toll ñi. C'est vrai qu'il aurait pu dire euh, serrons-nous la ceinture et ça ira mieux. <laughs> Financièrement, <laughs> peut-être. Concrètement, c'est ça qu'on veut, on va faire ça. Donc lii la. <laughs> oui, c'est vrai. des na. ah c'est que nag ñoom seen communication war nañu ko bu fekkee looloo nar am tamit de Sénégalais dañ leen votel pour. solution solution oui pour yëf yi wàññeeku yëf yi yomb ci ñoom. gouvernement bu solution la ñu wax. mais prédire prédire des moments très difficiles d'entrée de jeu mais. moo ko waxal boppam de kenn waxloo ko ko. on va on va mettre ça sur le coup moom da wax ñu jël mot di. waxoon naa leen ko fi barki fii nii ma ne leen fii ba nawet bi fii ba ñetti weer yi ñu jëm yii rek ngay dégg. dana saf. waaw jërëjëf docteur Diop jaraax bu mbaax ñu koy nuyu bu baax. waaw yéen dee leen wéy seen i message rek dégg ngeen ngeen wax ma ci lii ministre des finances bi wax nee na waxul difficile mais très la ñu jëm très difficile xaw ma nag très difficile mooy mëq suuf xaw ma parce que fi ñu tollu nii dèjà matale ñetti doom yi pexe naa ni ndékki añ reer jafe na bu fekkee très difficile la nag mooy ñett yëpp dañu koy rek lu waay jot sex tribune yéene kaay moo ko wax ak kàddu xam ne bawoon na suñu jëwriñ bu bees bi nga xam ne moom lañu dénk euh, finance ñu dikk ci li nga xam ne moom mooy xeex wàllum ger gi corruption ak nag euh, euh, kàddu ya nga xam ne Karim Meïssa Wade di dénk na ko Bassirou Diomaye Faye nee na na ci xeex waa Karim yi doon ko wax mu ñëw man yóbbante galgal ubbul làmb waaye moom galgalam bi mu yóbbante rek. te koo ba dikkal waaye Karim fu mu nekk wax ji yooyu yóbbante yi nga war a bàyyi. na ñëw message yi na ko bàyyi. na ñëw xeexal boppam. moom koy xeexatu. nguur gi fi nekk moom la jàppale. bàyyi bàyyi di tayle combat. ah. ça aurait été moi-même j'aurais même pas titré. non mais mais mais mais Karim wax fa dëgg yow de say wax nag léegi ñu bañ koo amara ci accordé ci importance parce que mënoon di yóbbante di yóbbante di yóbbante ba yow ka jàppale moom moo fal ah? ba pare nga continuer di yóbbante. di ko piis no bii de commencé piis ah ok clin d'œil yàlla baax na ministre bi ñu denk wàllum pétrole beef mine bi wala ministre des parrainages et des sponsoring <laughs> anti parrainage kay anti parrainage anti parrainage ah non dama jub ministre bu mine la ak pétrole Antoine Félix Diome jébal na ko léegi ma nga ca liggéey ba. seen i première de côté. waaw moom ku si wax na fu mu nekk nii. nga bañ a wax sax moo gën. Hmm. après peut-être nañ topp seen protocole. Wow. et puis la rupture c'est quelque part ça aussi. loolu nga ont cessé de caresser les gens dans le sens du poil. ils ont encore ils ont encore leur habit d'opposant. oui il faut aussi oui, oui, de, dans, <laughs> au de l'opposition ils ont changé de camp maintenant. Ah. c'est que loolu aussi euh, Mambe. nga ah. baal ma mais loolu aussi problème la bu ñu jàppee na ñoom ba léegi dañoo foog na ne opposition nañ nekk. ça pose problème il faut ñu xam ne ne ñu départir de cet habit de d'opposant xam na ne léegi ñoom ñoo nekk ci nguur gi et il y a d'autres propos à tenir allant dans le sens de de de de euh, nan laa ko mën a. dalal xelu askan dalal xelu askan wi oui ñu xam ne. waaye c'est vrai qu'ils ont les problème am na problème am na ñoom xam nañ ne problème am na moo tax ñu andi leen ngir ñu solution. non loolu tax ñu fal leen. yéen da ngeen taxaw ne problème dafa am ñun ñooy yor solution bi andi leen ñu ñu saafara ko. ñoom bi ñu taxawee Ousmane Sonko premier ministre mu ne gouvernement de résolution lañu la ñuy xaar. Mm-hmm. tey jii boo dukkee ñuy xaar résolution yow nga naan problème am na continuer na am problème dina am dina am dina am xaar ñu la ñuy xaar solution la ñuy xaar. mais euh, donc pas ngeen ñëw am na ñun xam nañ ne problème am na. mais Mame Mbaye est-ce que aussi ça ne fait pas partie du bilan où il se dédouane d'avance dans que lii nii doxuloon peut-être après cinq ans ñun bi ñu fi nekkee. bi mu doxulee ñoo ko doxal ñoo indi ay solutions. peut-être certaines ñàkk xam ne ñoom. ñàkk xam ne nii doxul moo tax ñu andi leen fi. Hmm? du loolu la ñu wax. dëgg rupture la ñu woote. rupture bi bokk na ci boo ñëwee nga ne ñu ñun lii mooy solution bi fii lañ leen jëmee mais pas rupture bi moo di problème am na de problème am na de fa ñu jëm dina metti de problème am na de. loolu du rupture. rupture bi bokk na ci discours bi tamit problème yooyu lañ doon dénoncé bi ñu nekkee ci opposition bi. dañoo xam ne sax il faut se départir de ce léegi sumil ngir yàlla sa mbubu opposant te nga ko ne. Oh, oui bien sûr. nee na c'est une mauvaise communication à la France à la François Fillon qui avait dit que la <laughs> France était en faillite. Sarkozy l'avait encadré jërëjëf waaye. encadré waaw oui oui non ils sont communication bi moom ça ne va pas. nañu ko xoolaat. ça ne va pas. deux minutes pour lii l' essentiel ne l' essentiel moo di faw askan wi xam Bougane Gueye Dany fa mu waxee. lu parce que nag euh, ci euh, euh, bataaxal ba nga xam ne. Mm-hmm. verbatim lañ ko tuddee. Mm-hmm. benn Makhtar Diop def na ko ci yéenekaay bi deux minutes pour l' essentiel. Mm-hmm. njiital gëm sa bopp daanaka moom mi ngi dikkaat ci la waral mu waxe na mu waxe waaye ña nga xam ne ñoo koy xas wala di am lu ñuy teg ci daram c'est parce que comprendre ñu fa mu waxe moom mooy wax le président de gëm sa bopp est devenu l' Euh, lan de euh, euh, Colibet Bougane Gueye est critiqué pour ne pas avoir choisi de choisir donc la coalition Diomaye président. Hmm. moo wax ba tey. waaye mais eh, Mame Mbaye xaaral xaaral ah, xaaral. xaaral tamit nit ñi aussi il faut ñuy nangul nit ñi seen i position parce que aussi c'est pas nit ki ku neex waaye faral. mais lan mooy problème mooy wax na ne deux non xaaral xaaral rek dimbali ay deuxième tour laay xaar mais bu ko neexee mu wax deuxième tour loolu moom la engagé duggul politique woo nit ne ko jox ma ma def wala ma dimbali la moom moo am carrière politique am moom Bougane moom la engagé kon lu mu ci jël décision loolu moom la engage mais pas ay wéy lii la waroon def lee la waroon def mel ni ne da ngeen seen gone gu ndaw ngeen yor ne ko fii ngay jaar mais fii kenn moomul kenn ku nekk sa position jël ko loolu mu engagé la mu jeex ku ci jël beneen position aussi nga nangul ko position mais il faut arrêter nit ñi wéy position bii nañ war a am pourquoi nee na moom ku xam Bougane Gueye xam ne bu dee tànn rek amul luñ ci justifié non benn waxtaan deuxième tour la wax moom lay xaar moom lay xaar amul deuxième tour loolu la yàlla def jeex na félicité na jomaay on se met au travail. et puis wax yi nii jaru ko fi on avance. benn maxtaan nee ku xam bugaan xam ne bu dee xeex rek nguur gi fi ne moom daf ci xeex ba tëdd si suuf. vraiment ay lii nga war a wax ay comptes am ñaata tamit mi ngi compte des médias ay salaire pour mu fay ko day gymnastique fu nekk na dugg. te Monte de des médias bu ko neexoon jaay ko mais ay daf ko teg ay sénégalais ñoo fiy liggéey muy rey boppam saa su ne ngir fay leen sa leen nguur gi teg ko lu tar kon ku xalaat ne am na lu muy defar nguur gi ci suuf yaa ngi nax sa bopp. moom mooy wax de benn waxtaan ba tey ci ñu dem waxal kii lu mu wax nii. mais dafa ma ñëw ci rek. il faut nga fàttali sénégalais yi bu tànn jotee ah. moom bu tànnee xam na ki mu war a tànn ki mu tànn xam na ki mu war a tànn nee na ñoom opposition bi. pourtant moom siège am la jël jox lañ ko. fa lañ doon defee seen gënoon na fee métti sax moom dong lañ doon gis gënoon na fee métti moom dong lañ doon. waaye justification yi da ko fi jarut. membre yi nee na saa su ne bu ñu bëggee wax ci moom lañ doon waxee. bokk ci opposition bi. wane boppam imposé wu. détermination engagement joxe lépp ay milliards daanaka mu fekk financé ko. kon tey jii bu nee nañ dem deuxième tour bu ñu demee deuxième tour. te nag dana bu ñu demee deuxième tour ñu tànn ki nga xam ne moo nekk anti système. mais loolu loolu am na lu fi jar ñu teg. ñu teg ci wax ci quatre vingt dix mille hectares yële bëgg a bu dee bu dee deux minutes day dugg ci ci ci kii bi sax si si si. journal si journal bi dama koy jël. Ah, ah. Ah, loolu moo gën a kii nii. nee na ci boppam mi ngi nii nee na ba tànn jotee ñu tànnoon Idrissa Seck ci campagne yee wees. Mm-hmm. lu ko ci fekk woor. tànnaat leen ñëpp buubu dem ci euh, Idrissa Seck ba mu ànd ci ñu war ko. Mm. mu tànn Bamba Fall lu mu ci mujj amu ci lu ko neex waa tey nag mu nee nañ xaar ba deuxième tour xanaa nag war nañ ko ko nangul. Mm. nee na fa fàttul dem xele nee na dëgg gi nag ëllëg dina feeñ bu ñu yàkkanti. Eh, doxaloon ñu dem demal bu ñu yàkkanti waaw bu ñu yàkkanti nañ ci bàyyi xel. ndax nag bu fekkoon poste rek moom moo ko yittal ministre rek moo ko yittal boobaa xam na xam na na muy def critique yéen a kaay daal di dikk. président BDF Titi donc le patriotisme des agents nee na leen jubal jubbanti dëggu rek lii la woote nañ ci bàyyi xel bu baax moom it. aywa laas yéene kaay neen. lii moo jar a wax. kër Moussa yëngu na de. la hmm. ko yëngal moo di coowal suuf. ferme QVS nga xam ne 1000 hectares la ñu jël jébbal ko benn waaye nee na xam ne fa mu ko jël te monté de fii nii euh, euh, euh, foofu nga xam ne moom lañ ko jébbal ñu fay nekk mbéyu dëgg la yëngu. si lañ yoree seen njaboot lu ñu fa am foofu la ñu ko jëlee. non xam man lu ma mënul comprendre mhm. sax. mooy au moment où ñun ñu ngi wax. souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire ñun dañuy jéggaani. Mhm. di importer un million cinq cent mille tonnes de riz. Mhm. mu tolloog presque mille et quelques milliards. nga ne wey nañu jël fi nga xam ne dañ fay bayee. dindi fa ña fa nekk doon fa daan seen doole. Mm. ba pare dogot dogotee ko def ko ay terrain pour nit ki ko di ko jaay nit ñi. ko ko waxul joxoñ ko. aywa xaw ma nag foo jëlee sa titre foncier. non mais tamit loolu du fi am de. waaye yow réew mi nee nañ bay dundee mën nañ fi jaar ngir suqale suñu bopp yow fa nit ñi doon béyee yoo xam ni foo foo jëlee sa sa sa këy ñëw na ak ci jóge leen fi waaye ñoom ñi nga ñu fa lañu doon bay nag. mën na la dem dañuy dem dañuy tàllal loxo wala. mën na lii bokk na ci jomaay feeg la ñuy xaar jomaay ak Ousmane Sonko. ah mbirum suuf yi ñuy jox ay nit ñu koy daggat daggatee di ko jaay nit ñi. mais kuy bay sax loolu on peut on nga jël kat participer ci li nga xam ne moom la askan wi di soxla moom lañ dañoo bëgg suñu bopp ñun ñuy bayal suñu bopp di ko jëfandikoo mu gën a yomb ci ñun. kon nga jël ko dagot dagotee ko ay terrain pour di ko jaay def sa poos président Diomaye yëf yaa yow xam nga li ci bay doomu baykat la. buñ sukkandikoo ci xibaar xam nga li ci bay xam nga importance bi. tey ñee war nga leen taxaw ndax yittewoo nañu ko. yaa ngi boo ñëwee coowal suuf jeex. jeex na nag yomb na trop na nga ñëw rek génn sa këyit nga ne mi ngi nii. aywa titre foncier la ngi noonu. anoo jaa nee nañ Decroix dafa mu nekk nii Decroix mooy jomaay jomaay mooy Decroix la woote. Hmm. <laughs> ma xaw ma ne moom parce que nee nañ. Decroix avec Wade puis avec Macky Decroix mooy Diomaye avec le projet ñeneen fi mu nekk daa ni foofu la jëm de Ousmane Sonko ne mi ngi nii moom it de ki la bëgg passation de service Diomaye ne ko doxalin boobu ci xaraam aywa <laughs> merci beaucoup bokk na ci li ci boppu xibaar yi présidence moom mas Bassirou Diomaye waaw dafa génne bataaxal bataaxal la ngir euh, sàkku ngir mboolem xibaar bu nga xam ne am nañu ko te mu mën a andi ak jalgati ci liggéey bi nañu ko boole yenn doxalin yi nga xam ne pra éthique ak euh, wàllum yoon daanaka daf cay sooxe loolu it faw askan war see mën a taxaw daal di koy xeex ay kàddu la ba Bassirou Diomaye fay tënk ci ab bataaxal ngir nag ñaawlu yenn doxalin yi ba sàkku it ak jubal ak jubbanti si suñu euh, doxalin daan dikkaat ci bëccëgu démb bi nga xam ne euh, jébalante lenge moom moo ci gën a fës euh, si ay ministère mu mel ni kon lu nu mel mi ngi xew si sphère ministérielle bu Diamniadio daañu waxtaane it Birame Souleye Diop kàddu ya mu yëkkati jëm ci bañ ñu koy parrainé wala gouvernement bi dootu ñu parrainé benn xumbaay ak mbumbaay rawatina làmb ji Pape Abdou faal tontu na ko di nga xamal ne kon làmb ji de bu dee développement rek fii ci réew mi Sénégal am na la nga xam ne jot na ko ci liggéey jeexale bi la jotaay xibaar yéen i kaay xëy fësal Mantulaay ci bundooy faram-fàcce gi Simon Pierre Faye lañ ci àndal ak Mamadou du priorité dees naka doo rax bataaxal ba nga xam ne njiitu réew mi président ba Bassirou Diomaye fay moom moo ko bind jébbal ko euh, administration bi di sàkku si ñoom ak doxalin gu jub akub jubbanti en tout cas ci bataaxal boobee nga xam ne juróom-ñetti fan ci weeru avril la ko bind jébbal ko fonctionnaire yi agent de l'état yi euh, loi bu 2012 22 bu 27 décembre 2012 nga xam ne moom moo taxawal code bu transparence jëm ci wàllum gestion des finances publiques loi bi la muy exiger moo di comportement éthique ak déontologique jëm ci yenn ci ay agent wala agent yu euh, euh, nguuruk Sénégal njiitu réew mi président Macky Sall président Diomaye Faye transparence la woote ci euh, doxalin gi jëm ci wàllum affaire publique nee na loole ci boppam na si ku nekk xar sa tànku tubéy dafa gis ne employé yu nguuruk Sénégal dañoo am devoir ngir na gën a bàyyi xel ci bonne gestion bi nga xam ne loolu mooy tax réew mi mën a jëm ca kanam Euh, moo xam ci wàllum finance publique euh, euh, volonté collective bu Sénégal en tout cas moo di ñu fexe ba mën a taxawal benn gouvernement bu nga xam ne nii daanaka lépp dafay aw si yoon ak jub axub jubal ko ci éthique ak responsabilité waaye it obligation jëm ci wàllum rendre compte su ko laajee bataaxal la bu nga xam ne nii Simon Pierre fay tey jii daanaka yéenekaay yu bari dikk nañ ci doxalin ko aw ci yoon en tout cas la ñuy sàkku ngir mën a rek moytu yenn yi. muy la loi 2012 22 bu 27 décembre atum 2012 te ku wax 2012 ci weeru mhm. décembre bi da ngay jàpp ne mi ngi woon ci njeexteelu daanaka mandat wu euh, ki nga xam ne moom mooy euh, euh, maître Abdoulaye Wade. Mhm. donc lii yàgg na ci réew mi. ñu koy fàttali administration ñu koy fàttali fonctionnaires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di def liggéey bi un peu à la base un peu partout dans les institutions ci biir ministères yi euh, ci biir services yi direction yi ak feneen ak feneen foo xam ne soxla nañ fa ay fonctionnaires walla agent de l'État et ci ñooñee bokk na ci également enseignants yi bokk ci médecins yi bokk ci soldats bokk ci gendarme yi bokk ci policiers yi bokk ci douaniers yi bokk ci euh, euh, service d'hygiène ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne c'est des agents de l'État wala ay fonctionnaires bokk na ci également ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le secteur de la justice donc bëri na ay pàcc yoo xam ne foo dem fu ne fekk fa ay agents de l'État mm-hmm. wala bokk ñi ñuy tuddee ay fonctionnaires et président de la République li mu def mooy fàttali leen lan moo war a nekk seen taxawaay seen taxawaay par rapport ak fi nga xam ne teg nañ leen fa seen taxawaay par rapport ak ndombo tànk yañ fa am seen taxawaay par rapport ak seen relation surtout ak ñi nga xam ne ñooy askan wi askan wi nga xam ne ñoom la ñu war a servir askan wi nga xam ne dafay sàkku yenn saay ay service wala bokk mu soxla ko ci seen doxalinu jamono et je pense que c'est tout à fait normal mu fàttali leen ko mhm. mais fàttali googee également dafa am lu mu àndal lu mu leen waxaat mooy fépp fu ngeen gis doxalin gu ñaaw wala doxalin gu àndut ak jubal fexe leen ngeen dénoncé ko fexe leen ngeen dénoncé ko parce que bokk na ci ñun li nga xam ne moo ñu fi tax a toog gouvernance boo xam ne yorin gu rafet lay doon gouvernance boo xam ne day ànd ak jikko yu baax gouvernance boo xam ne day ànd ak respecter non seulement sa liggéey mais respecter également ñi tax ba nga war a mën a liggéey parce que fonctionnaire yi nañu fàttaliku ne suñu xaalis ñun ñëpp la ñuy dajale di leen ko jox à la mhm. fin du mois ku ci nekk di ci faj sa soxla di ci terangal également sa njaboot donc am na nooy doxalee gënul ci réew mi te gis nañu wax dëgg yàlla fonctionnaire yi am na nag ñuy góorgóorlu am na ñoo xam ne mënoo leen joxoñ baaraama tuuma mais am na ci ñoo xam ne faw ñu góorgóorlu maa ngi ko doon wax sànq peut-être que heure bi gën na avancé mais peut-être am na ñoo xam ne ba léegi yeggaguñu sax seen bureau te yor nañu peut-être signature wala poste stratégique boo xam ne ay nit ñu ngay toog di leen xaar ñu naan leen diw de yegseegul diw moo yor sa këyit diw moo la ko war a lijjantil diw euh, euh, moom nga war a gis yooyu yëpp peut-être am na mm-hmm. am na ci ku ma yónnee message sax moom nee na tous les jours day góorgóorlu ba sept heures et quart fekk ko bureau donc ñooñ c'est des agents modèles ñoo xam ne taxu ñoo wax mais nekk agent modèle également làmboo jikko yu yu yu set mm-hmm. surtout moom la ñuy xaar ci mbooleem agent état bi ak fu ñu mënti nekk parce que ku ci nekk ne ak secteur ba nga ne la nga fay def la nga fay jëriñ war nga mën a fexe ba nekk fa également exemple muy dans l'enseignement muy dans la santé muy dans la police la gendarmerie l'armée la douane ak fépp foo mënti nekk y compris même ci bureau yu ndaw yi te xam nga mhm. fonctionnaire ba ci ñi gën a ndaw duma ma citer peut-être euh, classe euh, euh, euh, professionnelle pour ne pas heurter mais dem na ci sax ba ñi nga xam ne dañuy bale ak raxas fomp ak bureau yi et tout ñooñee ñëpp tant que ñu ngi ci au service public c'est des mm-hmm. agents de l'État donc ñoom mm-hmm. ku ci nekku ku ne fa nga ne wane fa exemple wane fa taxawaay bu jub wane fa également jikko yu baax dafay baax ci réew mi jamono joojee démb sa euh, sphère ministérielle bu jam ñaar ñaajo jàppale ne ko jébalante léegi am na fi ci ay jëwriñ yu yees ak ñi fi euh, euh, nekkoon mu mel ni kon double passation de service dafa am diggante professeur Moussa Baldé Mabawo ci ministère de l' enseignement supérieur recherche et innovation mu jël léegi ngay jébbal ko Abdourahmane Diouf bu département bu éducation nationale euh, kooke te ma ne sañ jàpp ne Moustapha Maba euh, Girassi moom it euh, jox na ko léegi ngay démbala woon ministère bi ñu dénk wala ministère sphère ministérielle bu Diamniadio ñu dikkaat si ay kàddu yu bawoo ci professeur Moussa Baldé Le gouvernement a mis en place le programme d'amélioration de la qualité de l'équité. nguurug Sénégal tegoon na programme bu ñu duppee paquet ci diirub 2013 jàpp 2030 xayma koppar yoon ci dugal toll ci 80 euh, pour cent maanaam téeméer boo jël juróom ñetti fukk yi ci nguurug Sénégal moo ko daal di financé sabab bi mooy taxawal daara ju ñoŋ ànd ak qualité ñëpp man cee jot. atum 2012 budget Sénégal éducation national dafa sax yokk ñetti cër yéen ko daan jox diggante 2012 jàpp 2024 jóge na ci.

Abdourahmane Diouf ma ñu dénk njàng mu kawe mi jot naa yëkkati ay kàddu jaajëfal professeur Moussa Baldé ma mu wuutu ba noppi nay ne jox nañu ko lenge yi ci jamono ji nga xam ne daanaka étudiants yi boolu jàmbat lu fees dell la ñu enu Abdourahmane Diouf jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mi kawe mi ay kàddoom. J'ai rendu un hommage particulier au professeur Moussa Baldé. damay delloo njukkal le professeur Moussa Baldé ndax gis naa liggéey bu am solo bu mu def ci bopp département bi professeur bu université nag boo xam ni dafa am bëttib njàqare ndax condition yu muy liggéeyee mënul jox xam-xam étudiant bu xamante ne fa bëgg a jëm ci kanam ñeel ëllëgëm étudiant yi moom na seen xel dal ndax daañu daje ak ñoom ci diiru yàggul dara am na ñu xam ne am nañu ministre boo xam ne xam na njëriñu bourse ci wàllu nekkin danaa liggéey bu bourse yooyee ñu taxaw ci bañ gën koy jot daal ci waxtu bi mu waree dana bokk nag ci suñu priorité stabiliser atum njàng mi ndax tey faw ñu dellu si ci am maanaam cosaan nag la nga xam ne mooy ci daara yu kawe yi ci atum njàng loolee euh, maa ngi ci woo acteurs yëpp nag ñu daal di ci dugal seen loxo ndax ñu am système enseignement supérieur boo xamante ne bu wu la ci diirub de à projet pour que cela puisse se faire dans les deux années. mu ngoog wàllum jàngam kaw mi Abdourahmane Diouf la ñu ko dénk jamono ji nga xam ne daanaka université boo dem ñu ngeex seeni i jafe-jafe. waaw euh, boo xoolee dafa nekk ñaari département yoo xam ne ne. Mhm. dafa am solo bëri la muy ëmb. je peux dire même moom moo nekk au début et à la fin justement ci ñi nga xamante ne nii ñoom nañu am xemmemteef pour ñu yor réew mi. ak ñi war a jiite ci loolu day revenir at ci li nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye bind lettre agent wu ñi nga xam ne état nañ ñoom bu ñu amul mu di Mamadou Guirassy men ak Abdourahmane Diouf bu ñu amul le courage def ay réformes profondes jëm ci wàllum éducation d'abord moom mooy changer système éducatif bi nga xam ne ci nañ nekk nii université mu war a mën na nekk université d'excellence saa waay man maa la wax lii ci les mêmes problème nañuy nekk parce que boo xoolee l'éducation ak la formation professionnelle c'est presque mille milliards la ñuy jëlal par an mm-hmm. te ku ci nekk day produire te bu produire après ñooñu ñooy wëlbatiku topp benn cycle daanaka benn cohorte de de boo xam ne ñooy tàmbalandoo CI ñooy demandoo ba fi nga xam ne moom mooy terminal ñoom ñooy retrouver wu à l'université mm-hmm. ñenn ñoo ci jàll le reste yëpp ils deviennent des chômeurs loolu moom mooy réforme yi nga xam ne justement moom la ñuy xaar mm-hmm. comment faire pour que l'école bi nga xam ne suñu doom yi ci nañ nekk dinañ jàng njàng mu gaaw njàng mu yomb te boole ci dégg nga mu am njëriñ parce que njeexital bi la finalité justement ñi ñi di jàng di rey seen bopp di toog ci banc yi moom mooy bu ñu paree jàng ba pare ñu mën a am liggéey. Mhm. or il y a une saignée boo xamante ne nii actuellement arrêté guñ ko ba léegi te bokk na ci lu gën a sonal nguur du fi jóge muy ces trois cent mille demandeurs d' emploi yi nga xam ne ñu ngi génn ku ci nekk mi ngi ut liggéey. Mhm. cette saignée la il faut ñu arrêté ko xool ni ñuy def. ba université day produire ñi nga xamante ni certainement ils seront dans l' administration ils seront dans les sphères de décision entre autres ñeneen ñi mais ñu orienté leen vers ce qu'on appelle la formation professionnelle ñu mën a am au moins qualification bu leen mën a may après ñu mën a am ci lu ñu mën a jàpp mais bu loolu amul man maa laa ko wax fii éducation ak formation professionnel il faut ñu am courage dem vers des yoo xamante ne nii njàng meeg njàngale bi dina mën a am li ñuy tuddee finalité bu am solo muy nit ki bu fa jógee mu mën a am ci lu mu mën a téye mhm. wala wa ilaa mu mën a am lijaasa bu koy mën a may bu génnee mu mën a am très rapidement liggéey mais nekk dans un système de production de chômeur loolu véritablement dool nañ ci sëkk te nekkatul loo xam ne lu ñuy xaar la ci ñoom ni ki démb sa jam ñaajo Moussa Bal Fofana teg nañ ko ci bopp gouvernement euh, ministère bi ñu dénk wàllum euh, euh, urbanisme collectivité territoriale aménagement du territoire naka noonu it Mamadou Talla Ndaw secrétaire d'État bu urbanisme ak logement ka leen ngay moo di Abdoulaye Seydou saw moom la ñu dénkoon urbanisme logement cadre de vie ak hygiène publique dikkaat na ci bilan bi nga xam ne man def na ko ci ñaar ci ay programme yu mu taxawloon mu di zéro zéro bidonville fàq tëdd jeex fi waaye it mbali mi dootu fi jaabaa jonge Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye jëlee ko ci programme zéro déchet ak UCG mu daal di nekk SONAGED ak programme zéro bidonville xam ni dafa intégré cent mille logements yi jëwriñ bi ci Abdoulaye di Sow di jaaraat ci la nga xam ne moo di ñetti at ak genn wàll ya mu def ci boppu ministère bu wàllu urbanisme ak logement. nous avons signé beaucoup de conventions des conventions avec des partenaires locaux notamment au niveau de la nouvelle ville de Thiès. Momadou Talla Ndaw di secrétaire d'État à l'urbanisme ak logement ak Balla Moussa Fofana di ministre de l'urbanisme de collectivité territoriales ak aménagement territoire ñoom nag ñoo daal di war a solo li nga xam ne moo di département boobe ñu ngi daal di diggee ay coppali am solo. à parler d'un développement endogène de notre pays. l'importance de l'aménagement du territoire, le rôle des collectivités locales et un cadre urbain. gannaaw jam ñaaju ministre Balla Moussa Fofana xam ni moom banquier la ci wàllu boppam moom ñu ngi ko doon xaar fële ca Ndakaaru ci beneen passation de service ca ministère bu collectivité te mu ngoog euh, ab Seydou Sow ma ne sañ jàpp ne bokk na ci ministre yi nga xam ne euh, peut-être si li ñu leen dénkoon wàllum euh, logement ak nag zéro déchet am na liggéey bu am solo bu mu ci def surtout côté logement yi nga xam ne di digoon nañ ko askan wi les cent mille logements sociaux mm-hmm. xaw ma nag ndax ñi fi nekk dinañ ko continuer wu pa mais nañu comprendre ne askanu Sénégal am nañu problème mu dëkkuwaay. Mhm. dëkkuwaay boobee moo waraloon d'ailleurs zéro bidonville. mais fàq dëkk googee boo demee ay gox ba léegi ma nga fa. Mhm. parce que nit ñi amaguñu fu ñuy dëkk nit ñi également ñu bëri ñu ngi laaj lange euh, euh, euh, cent mille logements sociaux yooyu fan la ne. est-ce que pare na est parewul li ci pare est-ce que ñi ko war a jot ñoo ko jot wala dañ ko jox ñeneen ñoo xam ne. ñoo ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo ëpp ñoom ñoo ñoo ñoo tane ñi nga xam ne c'est des cas sociaux mel ni ñun donc autant de de situations yoo xam ne faw ñu xoolaat programme yooyu ñii nga xam ne ñëw nañu également buñ ci gisee lu rafet lu jekk nañ ko fa ba jéem ko continuer wala boog améliorer ko parce que quand même logement yooyu ak programme yooyu xaalisu état bi la xaalisu Sénégal la c' est l' argent également du contribuable moom moo moom moo ko financé bu dul xaalisu contribuable bi it peut-être ci ay bor la ñu ko defaree te bor boobu yàgg-yàgg dañ ko war a fay foofu nag la peut-être euh, euh, gestion war a mën a amee solo nan la ñuy mën a def ba li fi ne ñu góorgóorlu ci indiwaat leneen loo xam ne dafay am rupture wala loo xam ne dafay consolider wala loo xam ne dafay àggali lu baax li nga xam ne peut-être amoon na fi parce que lépp quand même mënut a bon Mm-hmm. lépp mënut bon ci li nga xam ne am nañ ko boo jëlee par exemple euh, euh, zéro déchet mais góorgóorlu nañ ci bu baax a baax at yi ñu wéy dañ euh, heure bii def ñu daan fekk ëllëgu korité wala bés ba ca toppaat mais ñuy xool encore mbedd mi ñan ñoo koy nettoyer mm-hmm. mais depuis quelques années wax dëgg yàlla nguur gi fi jógee góorgóorlu nañ ci lu ñu mën ànd ci ak waa waa waa UCG jamono joojee ànd ci léegi ak waa Sonaged ndax dañuy anticiper ba anticiper veyu feet bi bésu feet bi ba ci ëllëgu feet bi nga xam ne yow boo yeewoo feet bi jeex na boo doxee ci mbenn Ndakaar yi benn mbalit du la sonal mhm. donc programme yooye la ñu wax ne au moins yooyu même bu jekkul trop nañu xool lu koy gën a améliorer mais lépp mënut a bon mais tout à fait également d'accord que xëy na ñu indilaatan ñu leneen loo xam ne dina mën a tax ba ñu ne kat ñii ñu ngi góor góorlu passation de service lañ toll ñu ngi doog a jot dossiers yi pour ñi nga xam ne ñoo fi ñëw bees bon peut-être nañu ne encore nañ leen may temps ñu sëgg ci dossiers yi xam li fi ne mais pour l'instant pour man waruta mën a yàgg nañu proposer ay solution lu am solo ñu waxtaanee kon ministère bi ñu dénk ko wàllum télécommunication communication ak numérique Alioune Sall moom la ñu jox euh, léngay Moussa Bokar Thiam ku ko jébbal moom nag mu ngay xam ne nii euh, la mu bëgg njëkk taxaw moo di andi ay réformes coppite ci secteur audiovisuel bi euh, fexe ba askan wi mën see gën a gis seen bopp moo xam ci wàllum transport beeg santé bi ñu mën nga leen ko wax jamono. wàllum jokkalante koppar gi ñu jaarale ko fa Aliou Sall ci fàttali moo jëwriñ bu yees bi ñu dénk wàllum communication télécommunication numérique jël na engagement ngir souveraineté numérique fii ci réewum euh, Sénégal Annette Seck Ndiaye bawoon na ci ministère bi ñu dénk wàllum xëy mi euh, travail emploi relation avec euh, les institutions jébbal ne leen ngay yanqoo ba jéeme loole nag euh, ba noppi te jébbal ko fa mu jot a toll ci liggéey bi gannaaw ba mu ko dëxëñee ci ab rapport ñu ànd seex ay kàddu yu bawoo ci yanqoo ba jéeme jox na ma ay document yoo xam ne euh, lu mu fa bind leer na IGE gunge ñu waaye it moom mu wax ne ginnaaw bu mu amee service yu am solo ñi nga xam ne ñoom lay complété ci nuyoo bi mooy monsieur le secrétaire général ak directeur généraux yi nga xam ne ñoo fi nekk directeur ak directeur généraux ak personnel bi ak syndicat bi it ak amicale des employés du ministère di wax ne kontaan nañ lool ci contexte bu ñu organiser passation bi ndax ñun ñoo woote ni dañ ko dañoo bëgg mu nekk loo xam ne lu sobre amul xumbaay amul mbumbaay kon nag euh, jébalante lenge gi ba tey sa ministère bi ñu dénk wàllum industrie ak commerce Serigne Gueye Diop euh, jébal na euh, lenge yi bëgg-bëggam moo di xeex wala sa jële fi njëkk yu cher yi ci la ñuy faral di jëfandikoo développer politique industrielle ak commerciale loole bokk na ci jéego yu mu bëgg a def ba noppi it mi nga xam ne kon loole faw commerçant yi industriels yi xeltukat yi dugal seen loxo ngir mission boobee daal di antu mu nga fa wuutu Abdou Karim Fofana ma nga euh, xam na moom la ñu dénkoon boobu lépp euh, ministère. ñu dikkaat euh, ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum économie plan coopération ak fonction loolu nag wala sax wàllum coopération démb moom it jébbal nañu ko léegi Abdourahmane Sarr lay wuyoo bëgg-bëggam moo di mboolem lu nga xam ne jot nañu ko fa liggéey ñu jot koo téye waaye nag fexe ba Sénégal am souveraineté économique fii ci réew mi ministre bi nga xam ne moom moo fa nekkoon Mouhamadou Moustapha Abba moom dikkaat na ci euh, la nga xam ne jot na ko liggéey ci bopp ministère bi ñu denk wàllum plan coopération diggante 12 mars jàpp ñaari fan ci weeru avril ci atum 2024 nanga ko Bakayoko Mamadou xam Ndoye ministère de l' économie plan ak coopération mooy ministère bi nga xam ne moo rëdd plan Sénégal émergent ak yeneeni plan d' action prioritaires yi jëwriñ bi yees bi jiite boobu lay ministère ne dina sukkandiku ci lu nu jot a def ngir fexe ba Sénégal moom boppam ci wàllum koom Euh, li muy tekki mooy mooy secteur privé bu foor mais secteur privé bu fort dafa laaj état bu fort ci gannaaw euh, état bu foor boo xamante itam dafay jàppal les territoires donc yeewi askan bi ñu mënal boppam mënal seen bopp yeewi territoire yi ñu mënal seen bopp loolu balaa muy mën a nekk Sénégal ci boppam day def ay jéego yu koy permettre mu gën a dëgër finance publique ba pare mun a jàppale euh, donc. askan bi. jëwriñ bi dellu si ci yoon yi ñu war a jaar. yeewi yeewi yi waat mooy yi askan wi yeewi Sénégal yi gox yi ak goxaan yi ko defee ku ne mënal bopp moom boppam mënal boppam ku ne mënee mënalee boppam à ce moment là Sénégal ci boppam le projet de souveraineté bi ñuy wax day mën a dañ koy mën a jëmmal. noonee ministère de l'économie plan ak coopération boole kook ministère bi ñu dénk koppar ak gafay réew mi mooy ñaari ministères yi nga xam ne ci la ñu sukkandiku mbooleem xeltu gi war ak ni ñuy jëfee politique publique yi mu ngoog Mamadou Fofana yéen kaay bi tribune ñëw na dikk ci ay kàddoom di xam ne kon fa ñu jëm bee boo ñu waajal te xam ne dana tar lool am na ñuy njort ni est-ce que duñu yegg ba supprimer li nga xam ne moom mooy bourse euh, euh, sociale bourse familiale bi nga xam ne jotoon nañu ko génne euh, délégué de quartier yeex chef de village yi salaire ba leen daan jox ñu daal di koy dindi ba noppi te conseil yi doon yaakaar salaire wala ndàmpaay jële ko fii adjoint au maire ñuy lokk yokkaloon yooyu yëpp ñu daal koy dindi bourse familiale dindi ko fi dina dooy war de est-ce que xam nga dans le Sénégal des profondeurs am na ñoo xamante ne nii seen revenu yeeg lépp boo ko boolee ça ne fait même pas dix mille francs kon tey dangay jàpp ne ne voilà la pertinence ak tamit solo si nga xamante ne nii bourse familiale am na ko même si c'est trente cinq mille ñu mun na leen mun nañ ci jàppandi parce que mënoo tey comparer ñi nga xam ne ñoo nekk en ville wala ci dans les zones urbaines ak ñi nga le Sénégal des profondeurs tey am na ci ñoo xamante ni pour ñu feebar faju problème la kooku mënoo ko ne CMU bi nga xam ne couverture maladie universelle bu fi nekk yow mënatoo cee jot su boobaa encore problème la man la ma gëm te mu am solo xam nga moom mooy lan moom la ministre sax bi wuutu Moustapha Ba ci économie wax na ko moom mooy question monopole mm-hmm. nan ngay jëlee suukar Sénégal nga ne wéy Jean Claude Mimran moom moo ko fi joxe CSS kase bu doyut nga jël ay dippa jox ko ay nit ñi ñu dem euh, bitim réew uti suukar pour ñëw doo ko fi joxe loolu moom mooy lan ay quinze mille hectares nga jox ko benn nit mu fay bay suukar pour wëlbatiku jaay ko sénégalais ci njëg bu cher boo xamante ne nii sa waay paquet suukar léegi boo laajtee ñu naan la ay mille deux cent mille trois cent francs loolu moom mooy lan loolu moom mooy xeex bi comment faire pour que ay monopole yi nga xam ne dañ koy jël di ko jox benn doomu aadama mu koy jël di bang bangee sénégalais yi mm. loolu jeex fi exonération yi anam plus finir yu dul yi nga xam ne moom mooy am ñu xool nuñ ko wàññee wala ñu teggandi ko parce que aussi xam nga sa waay réew mi tant que yenn courage yi amuñu ko par rapport ak suñu politique yi man maa la ko wax duñ dem munoo mm. wàllum banque Sénégal daanaka amoo ci dara wàllum assurance ay étranger wàllum cimenterie pratiquement nee nañ la benn sénégalais moo ci nekk au moment où il pratiquement quatre multinationales yoo xam te ne nii ña nga ca mais loolu réew mi mënul kon ne du dundee noonu il faut réew mi gën a moom boppam moom mi ngi koy wax yeewi xaw ma yeewi waat yeewi effectivement il faut aller versa il faut ñu am courage te xam na ne ce ne sont pas ces euh, euh, la ñoom ñooy ñëw du ñu développer suñu Sénégal munatuñu nangu ay ñoo xam ne dañuy jóge tugal ñëw fii jël suñuy alal jéggaani waat ko yóbbu seeni réew ñun ñu bëgg a mm-hmm. nekk ci ndool kese loolu mënul nekk et justement loolu moom mooy wax bi il faut un bon modèle économique boo xamante ne nii dinañ mën di dépasser li jëm ci wàllum woy pour ñu mën a dund il faut ay taxes il faut euh, taxe douanière il faut nangam ak nangam pour askan wi mën a dund noo am nañ suuf am nañ naaj am nañ phosphate am nañ leneen ak leneen sawaay volonté kese moom moo fi des bu ñu nekkee ay euh, dirigeant yoo xam te ne nii ñu gëm lu ñuy wax la man gëm mm-hmm. naa ne Sénégal war na mën a tekkeeku moom boppam sur tous les plans et loolu c'est bien possible amul dara loo xam te nii lu ci extraordinaire la wala leneen volonté la def ci fulla ak fayda jiital le sénégalais d'abord bu ko defee je crois que war nañ mën a atteindre lu ñu bëgg lépp jëriñ bi dénk wàllum euh, économie plan ak coopération la ñuy desandi Simon Fer Abdourahmane Sarr mu ngay dalal xel nekkoon dinañ sekk waxtaan dialogué ax nag euh, seen i partenaires yi UEMOA xool nees lañ mën a def ba am suñu weccitu bopp ñu ñuy tënku ci kuréel googe ay kàddoom wax na ko bàkk ko financement financement euh, lu am solo la Euh, suñu entreprise yi muy askan bi mu mën a moom seen bopp mën a financer seen ay projet wu bopp il faut que ñu am accès financement accès financement euh, c'est un secteur financier bu dëgër moom mooy permettre tam mu mën a nekk alors euh, mënoo wax accès financement ci waxuloo waxu xaalis waxuloo waxu koppar donc loolu tam ci yooyu mois la ñu bokk lu baax loo xamante ni dañ ko war a consolider dëgëral ko waaye itam am na lu ñu ci war a mun a soppi de telle sorte que foofu ci fànn boobu itam ñu mun ci moom suñu bokk de telle sorte que euh, xaalis bi nga xam ne dañ ko bokk-bokk ak yeneen réew yi ñu bokkal UEMOA mu nekk suñu xaalis boo xamante ne nii li koy yëngal muy yéeg wala di wàcc day nekk loo xamante ne suñu koom-koom soxla la ay Simon Pierre Faye ñu waxtaanee comme ni nga ko doon junjee sànq ak yéen kaay ni mu ci dikkee Mamadou Moustapha Ba jébal na lengay Cheikh Diba ñu gis ne kookee en tout cas dikkaat na ci euh, ay euh, promesses yu nga xam ne bëgg na ko def jëm ci gouvernance bu nga xam ne tëddee naa lay doon askan wi gis ci seen bopp Cheikh euh, Diba ministre bi ñu dénk wàllum koom gu bees bi ay kàddu wax na nga ko bakk ko. je prends. maa ngi dalal sa xel dina def sama kéem kattan ba euh, li nga xamante ne bi yanu naa ko ma def ko ci anam yi mu gën a waree. Sénégal dafa nekk euh, jamono ji ci ay défi euh, war a nag am ay mbir yoo xam ne da ci war a jublu soobu ci te ministère bi ma jiite moo war a njëkk nag ci combat bi. nangu naa nag brassaaru chef d'équipe bi ñu ma xam ne moom lañ ma takkal te dinaa def sama kem kattan ba ñiy liggéeye fii ma gën a yokk seen condition wu liggéey liggéey ndax noonee képp la ñu mën a jotee ci objectif yi nga xamante ne bi moom la ñu teg suñu kanam. si la solidarité ñaari tànneef Cheikh Diba Abdourahmane euh, saar ñu wuutu Mamadou Moustapha Ba ci wàllum euh, budget wàllum finance wàllum com euh, plan ak coopération tànneef googee ñu ko rek ci jiixi jaaxa waaye dañu leen tànn ndax nag du ñàkk bëggal nañu jógee ci plan Sénégal émergent daal di jëkk ci projet bi bu ñu sukkandikoo ci Pape Abdoulaye Seck économiste la nee nañu nag bu ñu jël lépp lu nga xam ne plan Sénégal émergent jot na ko def ñu gas suul marque rupture bi indi projet bi ay kàddoom ci téléphone yu ñu daa ñëw rek nit taxal naa PSE aca dégagé nañ ko teg nañ projet de déedéet demewul noonu projet bi dafa nekk loo xam ne ci wàllu économie benn li ñu xam na dañ ko xalaat ñu xool léegi fi nekk lan moo ci manqué fi nekk lan moo ci baax li fi nekk lan moo moom a dindi ak lañ ci a dolli ci am fu mu jëm pour mu mën loo xam ne moom la Sénégal xaar ci yokkute boobu économie la ñuy wax li ñi xoolee ñi nga xam mooy ministre yi nga xam ni ñoom ñoor koo doxal muy le ministre Abdourahmane Sarr Diba di également le ministre Cheikh Diba bi nga xam maa ngi koy félicité bu baax mu nekk ay nit ñoo xam te ni PSE du gan ci ñoom parce que bu yàggul dara ba fi ba nguur gi fi nekk di daanu ñu nga xam mooy mise en place bi nga xam moom lañ doon def e bi ñi nga xam ñoo ko yoroon di ko déroulé acteur la ci bu essentiel ñooñu xam nañu déjà d'emblée fan lañ tolloon lan lañ soxla ak lan moo doon seen difficulté parce que ay acteurs lañ ci woon kon ñooñu noonee la Abdoulaye Diarra gisee xelam dafa màcc jëm ci wàllum politique publique ak lu soxali gox yeex a gox goxaan yi du collectivité territoriale dafa gis ne seen projet boobee de mënul suul plan Sénégal émergent te nag bee boo ñu xam ne projet bi dafa laaj koppar bu takku ni ko plan Sénégal émergent amee woon Abdoulaye Diarra ci téléphone yu nu sabal de mënta nekk gas yi nee naa le plan Sénégal émergent dina point yoo xam à la kulli al ne lii ay points yu positif la donc moom dina am point yoo xamante ne jàpp nañ ne war nañ ko gën a mun a ñoŋal tamit dinañ ci def li nga war li nga xamante ne moom moom nañ ko gën a ñoŋal dina am point yoo xam à la kulli al dañ koy écarter parce que répondrewul li nga xamante ne moom la askan bi xaar mais guddi ñu toll dafa am yeneen yoo xam dafa génn mooy laaj benn rapidité boo xamante ne laaj également benn efficacité boo xamante ñoom pour ñu répondre ci loolu à la kulial lale dañ koy jël pousse ko teg li nga xamante ne mooy répondre à la situation actuelle réew mi fi ñu ko fekk ak fi ñu ko war a jëmale donc mun na nekk somme boo xamante ne dans l'immédiat mun na nekk exemple deux trois mille euh, milliards dans deux ans ou ans mun na wàññeeku mun na yokk donc dafa nekk loo xamante ne vraiment ñoom ñi nga xam ñoom ñooy spécialiste ñi nga xam ñoom lañ dénk ministère yeeg institut ñoom bu ñu élaborer seen plan d'action donc woo xam avec des objectifs dañ koy séquencer fekkee jële fi li fi plan Sénégal euh, émergent def maanaam marqué rupture moo leen tax a jóg en tout cas ñi seen xel dafa màcc jëm ci lu ñu mel mu ngi xamal ni jëlee ko fi dana jafe ndax plan Sénégal émergent am na lu mu fi liggéey euh, tey nag dañuy faral di état continuité la. oui état continuité la c'est que nag euh, nguur gu ñëw ak na ngay bëgg a doxalee. Mhm. Macky Sall bi muy ñëw defee jëlee woon soppi. moom mu proposé ñu yoonu yokkute yoonu yokkute boobee diggante 2012 2014 ñu indi rupture indi transformer ko euh, en plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent boobu depuis 2014 mhm. ba 2024 def na fi 10 ans euh, ñu ko doon séentu mu waroon a dem ba 2035 bu fekkantoon ne euh, ñoom Macky Sall ak i nitam ñu ngi woon ci nguur gi mais malheureusement yeggu fa 2024 gii la yem euh, Pastef ak Jomaay indi li ñuy tuddee projet projet pour un Sénégal souverain uni et prospère donc foofu lañu toll Euh, juste peut-être une rupture politique la. Mhm. rupture politique boo xam ne également dafay indiwaat yeneen yoo xam ne moom la ñu bëgg a doxalee. plan Sénégal émergent bi moo tënkoon action yu bëri yoo xam ne état bi Macky Sall ak nguuram ñu ngi ko doon def ci wàllu éducation ci wàllu santé euh, wàllu infrastructure presque domaine bu ne ba ci euh, nawet beeg yeneen mhm. yu ni mel et donc tamit. Euh, bëgg indi leneen lu wuuteeg plan Sénégal émergent parce que plan Sénégal émergent ñoom campagne wuñ ko li ñu jaay askan wi ci campagne bi moom moo di le projet projet boobu kon ñoom bu ñu toogee on s'attend valablement à ce que ñoom ñu doxal ko looloo waral peut-être rupture bi mais nag ak nu mënti demee li fi PSE bi def ak Macky Sall lu bëri bokk li nga xam ne nit ñi teg nañ ko gët ñoom duñ ko tonni sànni ko géej mënul nekk parce que même Macky Sall bi muy ñëw autoroute bii diggante Dakar ak jam Diamniadio mais def ci toftal beneen autoroute rabat beneen bu jëm Touba rabat beneen bu war a dem Mbour ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc yooyu moom ala kuli al fii nga koy fekk aéroport ba Macky Sall fii la ko fekk pourtant moom moo ko yeggali donc yii également fi ne noonee la ñuy xaar ñii nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yor nguur gi bees ñoom tamit ñu ñu ñu continuer d'une certaine manière lu baax li nga xam ne def daal def nañ ko fi ci wàllu infrastructure parce que mënuñu ko sànni mënuñu ko teggi mënuñu ko toj mënuñu ko def leneen il faut forcément mu des fi ba ci BRT bii nga xam ne essais yi commencé na depuis mais même bu fekkente ne commencé wul di yóbbu ay nit comme ni ko doon séentoo mais boobu également faw forcement mu des fi mënuñu ko teggi sànni mais ci seen cadre projet bi nga xam ne nag moom la ñu proposé woon askan wi ci campagne électorale bi ba projet boobee tax ba ñu fal leen rupture gi peut-être foofu lay ñëwee donc projet boobee également il faut mu sukkandiku. ci mhm. as mbir loo xam ne mi ngi fi pour mën a ñoom ñu mën a doxal valablement ni ñu ko déggee ak yóbbu Sénégal fi ñu ko bëgg yóbbee Macky Sall bind na turam ci tarixu Sénégal ci wàllu transformation du pays on attend également que Diomaye ak waa projet ñoom également ñu bind seeni tur ci euh, transformation transformation wu Sénégal ci peut-être leneen lu gën li nga xam ne moom la ñu am fii wala bokk leneen lu yokk ci li nga xam ne moom la ñu amagum ba fii. jërëjëf euh, Simon Pierre Faye 8h36 rendez-vous bi ak rédaction bi lay doon. waaw xanaa 12h ma bàyyi la ak sa xuloo waale. sa xuloo waale moom <laughs> mën ñëw lay bañ a dégg <laughs> moom rek lay bañ a dégg. moom du bopp tës. <laughs> waaw incha allah ñu waxtaanee tolluwaay réew waaw. ak sa xarit Mantoulaye Thioub Ndoye. waaw maa moom dama sa xuloowaale Iran Irak. moom lu ko lu ko lu ko naqare rek. neex na la. jërëjëf waay yàlla baax na yéen ñaar D-Média boolew leen <laughs> sa oxygène la. des na ñu waxtaanee ba tey ak Birame Souleye Diop kàddu yam yëkkati jëm ci bañ ku ko pare parrainé wala mboolem événement bu am en tout cas loolee njuum te gën koo màgg ci wàllum communication du samay kàddu Pape Diogay Faye mooy ni xam xamle nee na Birame lay Diop erreur la def ci wàllum communication ñu teewlu ay kàddoom. ma yaakaar daal mooy euh, euh, Birame Souleye xam naa dafa dafa juum. dafa juum ci ci ci ci lu bari parce que quand même euh, en tant que ministre de la république tey jii euh, su taxawee wax ne dootuñu subventionner le football ak euh, duñu kii duñu pare ne ay séance de lutte wala de de de de de match de football loolu dafay nekk lu doy waar d'autant plus que ñëpp xam nañ ne état Sénégal. Euh, jàppalewul football bi jàppalewul làmb ji ni mu ko war a jàppale alors que c'est des activités de jeunesse c'est des activités sportives ak culturelles yoo xam ne yi tey euh, ci sunu wàllu aada ak cosaan làmb ji dafa am rôle bu am solo boo xam ne bii joué na ko non seulement bu dul sax activité culturelle bi mais bu xoolee aspect social bi donc état bi loolu au contraire daf ca war a gën a def xaalis gën ci gën ko organiser ba pare gën leen jàppale mais euh, su taxawee wax loolu donc yaakaar naa ne Euh, ci football bi aussi euh, club yi club bu Sénégal yi dañoo pauvre dañu ndóol trop euh, miracle la sax ñuy produit jeurs yu yu yu yu am tala ay quelques rares rares club nga fiy gis ne ñoom ñoom ñoom ay ñett ñeent à la limite mais tey jii waroon nañ leen gën a jàppale gën leen jàppale parce que équipe nationale pour mu taxaw il faut que club yi am doole man jàpp naa ne fi ma ko doon séentoo mooy mu wax ne danañ fa gën a def seen doole gën fa def seen xalaat wàllum euh, làmb ji ñoom it mer nañu lool ci kàddu yi Birame Souleye euh, Diop bu ñu sukkandikoo ci ko jiite association des promoteurs de lutte du Sénégal Pape Abdou Fall lay wuyoo nee na Birame Souleye Diop xam la muy wax ndax na bu ñu fàtte ne làmb bokk na liy suqal bokk na ci liy suqali réew mi wala it luy jaay destination Sénégal ay kàddoom ñu teewlu ko moom Pape Abdou Fall. muy sotti boo xam ni comme ni ko euh, tubaab di waxee c'est regrettable du woon lu ñuy xaar du ci yi. du ci bërëb bi parce que dama yaakaar ni bu ñu jullee korité ba pare war nañu wax loo xam ni day jëmale askan wi kanam ak jéggalante balonte ak wax lu rafet waaye discours boo xam ni exclu day exclure day nourrir haine rancune du loo xam ni lu ñu doon xaar la ci euh, ministre boo xam ni dafa bokk ci nguur de toutes les façons promoteurs yi nga xam ñi ay commerçant li ñii di ay homme d'affaires di jël seen xaalis di ko dugal ci làmb képp ku ñuy tudde seen bis moo tudde dooma yem danga nga war a doon un modèle pour ñu tudde la Birame Souleye Diop dafa war a toog xaar ba promoteur fëgg këram ne ko dama laa bëgg tudde sama làmb su boobaa war na mën a am tontu bu mu ci war a indi je pense que bu ñu commencé ci ay diversion bu ñu commencé ci ay adversité bu ñu commencé euh, nguur gi ci ay détails yoo xam ni amul bopp amul genn jaajëf muy ay kàddu yu bawoo ci Pape Abdou Fall moom moo jiite kuréel gi ëmb promoteur de lutte fii ci réewum Sénégal ñu jàll ci euh, pàcc bu mujj bi li yéene kaay xëy fësal Ahmantulaay ci bundoo ci réewum Sénégal yéeni kaay bi dee média bi naan maan ministre bi yees biñ dénk finance bi day ma ngay artu sénégalais yi ma nga naan leen fan jëm a tax te fan jëm day moom ma di jafe-jafe yoo xam ne mënees naa am ci réewum Sénégal te la ñu jëm nii ña nga jëm ci ay moment yoo xam ne nar naa tar wala yu difficile ci réew mi Walf Quotidien naan kon ca bor ba la bor yi ñu bàyyee réewum Sénégal gii nekk na kado boo xam ne daanaka dafa am poson moom président ma Macky Sall laxas ba mu baax jébbal Bassirou Diomaye Faye l'observateur naan kon ay signaux d'alerte la naan konte ministre des finance bu yees bi moo ko xamle yéen kaay futur média bi ne ko ma ñëw rek ma ne la ay signaux la yoo xam ne dañ ciy daal di alerter loolee nag laaj samp na ci ndax nag waajal sénégalais yi la ngir ñu xam dëgg-dëgg réel politique nees doxee ci réew mi ak lu mën a am soxla nañu ab temps de grâce ngir saytu ña ñu war a saytu def ay audit waaye tam daal di xool ne sàllar ñu ko war a fecceeku ci secteur yëpp ngir mën a joyanti leen ci réewum Sénégal tribune yéen kaay naan kon en tout cas Abdourahmane Sarr ngay artu réewum Sénégal ci jafe-jafe nga xam ne warees na ci soobu te du yàgg l'enquête quotidien naan kon fi mu ne xel mën na dal ndax liggéey bi daal dinay door weccante le ngay daal dinay am ni ki démb passation de service yi daal dinay am ci mode fast track waaye tam ci dal ak tekk bal tàkkul sagar xeeñul xumbu teef amu ci diggante économique finance forces armées industrie le soleil yéene kaay naan kon son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom président de la république bu Sénégal ma ngay woo agent yi cib liggéey turbine yéene kaay naan kon moonte Karim Meïssa Wade day ma ngi ko cay ñaax moom Karim nag xeexu ger ci wàlluk institution yu réewum Sénégal yi ca la mu nekkoon jógu ca ñamu doon tuumaal bàyyiwul moom yi a nga naan président bu yées bi jógal ci lii ger yi nga xam ne am na ci suñuy institution ba tax doxin wi daal di des nañ ko xeex li ay dëgg lee fa yéene kaay naan kon daanaka ku la gunge ak ko amul fu mu fanaan la di tëjal bunt bi du leen mës a tàqale moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga naan fonctionnaire yu réewum Sénégal lii laa leen dénk jub jubal ak jubanti transparence lum la mayul mënu la ko xañ nañuy liggéey ci lu leer waaye waaye tam ci lu lew basa nga naan leen lépp lu ngeen di liggéey teg leen ko ci temps teg ko ci heure waaye tam bu mu ànd ak par parparloo te bu mu ànd ak génn ger dafa am loi boo xam ne ci réew mi daf fee teg nees doxalee ñu dippee ko code de transparence moom président naan leen waaye waay fonctionnaire yi tënku leen ci ni yor affaire publique mani la tënku leen ci lii ndax loo ci man manti déggit man Bassirou Diomaye Diakhar Faye jublaa woote ak jubal critique yéen kaay naan kon moom bas day ngay làmb seen patriotisme di ñaax agent yi nag ci liggéey goo xam ne ñaq yoon du am génn ak jafe ko di Quotidien naan kon boobu Ousmane Sonko day ma nga ni yee saal di recruter Serigne Boub yéene kaay bi naan man ngir joyanti secteur privé moom Serigne Boub bokk na ci ñu Ousmane Sonko njëkk dalal ngir wax ak moom ci lu ni mel deux minutes pour lire l'essentiel naan ko wax ci li wax la ca des de loo ci manti déggit moom Bougane Gueye Dany ab réalité politique la fii ci réewum Sénégal njiital gëm sa bopp ña ngi koy joree xeer fu ne di ko ŋàññee fu ne di ko yekk keteme ndax tabbul coalition Diomaye président ngir ay ñu ñam sànnil ko xob moom entrepreneur bi nag gaa yi di ko salfaañe muy tàmbalee dégg keteme ci réew mi groupe de presse am daanaka daal di gëj na ko dégg ñu bloqué ay comptam ñeenti at a ngi nii jafe-jafey koppar daal di leen di tënku terewul ñang ca ngor ga rek di def kéemtalaay kàttan ba mbiri di jaar ci yoon te la gënoon yomb day mooy jaay ko ndax benn mataar ci yéene kaay bi ma nga naan ci am amam téeméer boo jël juróom ya moo fay bàyyeekoo te téeméer boo jël ci ay jafe-jafeem juróom ñeen fukk ak juróom fa lay bàyyeekoo te moo ne day plateforme boobee jógul ci di ko séddoo opposition bi juróomi milliard na ko ci terrain bi 2017 ak tey lépp nag ci xeex régime président Macky Sall bii benn mataar naan dëgg la mënoon na ni ay ñu ñam dem leen woteel jomaay président waaye ëllëg sénégalais yi bu nu yeewoo mën nañ jàpp ne dafa am lu tax choix boobee am waaye daf ni leen dem leen jàppale ji opposition bi te opposant bi nga xam ne moo gën a xeex système jàppale leen ko benn naan waay waay nañ ko nangul ne libre na it ci choisir te it choisir ko ko saf ndax 2019 bugaan na fi it moo fi choisiroon Bamba Fall te butéel ga ay war la mujjee ak ñoom deux pour lire l'essentiel naan ko loo bañal bañal ñoom bur nangul ko guddi noppam loo ko mënti waxalit moom bugaan mësta collaboré ak régime président Macky Sall te loo ci mënti waxit tabboon coalition Diomaye président suñ sa noppee nga falu ami postit moo gënoon yomb lii wane na ne ay tabb taxu koo jóg fauteuil yu ministre taxu koo jóg te Ousmane Sonko mi nga xam ne ab tacticien la xam na ni dëgg-dëgg fi politique di doxee ci réewum Sénégal waaye tam ci askan wi ni mu waree ci lépp loo xam ne gouvernement gi mi ngi koy def ci jéego projet Bougane Gueye Dany lay doon ci réew mi diggante stock électoral ak logistique boo xam ne dee su ko laam-laamee kon doon na partenaire boo xam ne dee su ko négligé benn mataar naan xalaat leneen nag mooy mel ni kuy gumba gumba lu tëx tëx lu ci ténor médiatique yi leader symbolique yi waaye tam réalité politique bi nga xam ne nekk na ci terrain bi l'enquête naan kon ak lu mën a am bu leen fàtte ni réew mi soppi na jikko soppi doxalin jomaaya ngay woote ci liggéey weccante léeg-léeg am na ci réew mi léeg liggéey bi door laas yéene kaay naan kon terewul scandale yaa ci réew mi Kër Moussa lu toll ci juróom-ñeent fukki hectare daal dinañ koy tibbee ci suufu jàmbur téeméer ci ay liggéey daal di menacé le ak ci naan maan cour suprême yi dàq requête fournisseur locaux yi ci marché juróom-ñaar fukki milliards ak benn bi nga xam ne doxoon na diggante fournisseur yeeg ministère de la santé waaye itam société bii di ACD ñoom avocat yi ci boppam bëgg juge Abdoulaye Ndiaye bañ laala ci mbir mi ndax nag daanaka tëddewu ca njaaxaanaay KWF ma nga xam ne moom lañ jiñoon financement yi daal di koy weddi moom ministre des finances woon Mamadou Moustapha Ba moo jébbale ab attestation de financement bu KWF bi nga xam ne banque ba ci boppam weddi na ni mosu koo joxe dossier ba nag ñu war ko jugé wara xool dëgg-dëgg fan la ca coow la daal di féete le témoin yéen kaay naan kon coow la ca pëndub teen ba gaaña baaga waaye coow li coow li fi mu ne nag AIBD la AIBD mi nga xam ne ñu ngi koy jori xeer ba maar day taali AIBD nan daanaka yàq der ak salfaañe moo fi ne waaye coow li moom moo di téeméer boo jël ci société bii di 2 moom AIBD am na ci juróom fukk ak benn leneen la moom moo di la laas SA amoon ci DAS la ñu ne la jënd te la ñu xamul mooy ba ñuy taxawal société bi xaatim nañ ci loo xam ne kenn ci ñaari société yi mën na jaay ay action ay filiale am wala ay actionnaire am te soxlawul yéen actionnaire di dëggal AIBD nekkub actionnaire kon ci yoon la teg jënd googee ndax tax na société bi doon cent pour cent sénégalaise ndax téeméer boo jël juróom-ñaar fukk beeg juróom benn AIBD ko moom téeméer boo jël ñaar fukk ak ñeent ya Air Sénégal moom ko te jubluwaay gi moom moo di daal di jël société bi def ko bu Sénégal Sénégal it koy moom moom Zeynab Sankara ci la tee moo yéene kaay naan kon déet tontu laaj yi lan moo tax ñaari fan laataa élection yi ñu door a xaatim contrat boobee terme yi tax ñu xaatim contrat bi lan la ndax AIBD daal dinay jox 2AS la nga xam ni moom la laajoon su dee jox nañ ko naka la demee appel d'offre ba naka la daal di tëddee kan moo moom société yi nga xam ne moo daan def commande yi ba ñuy def appel d'offre ya ndax am nay société sénégalaise yoo xam ne bëggoon nañu bokk Sud Quotidien naan leen lu am jàpp leen lii taxawaayu réewum Sénégal day ay retraité lan yoo xam ni maar day taali daanaka daal loxo yu leen bàyyi loxo daal di taxaw gënte pension yoo xam ne dañu koy am te maar taali la ay loyer yoo xam ne dañ leen koy fayal ay woto yu bakkane sécurité personnelle yoo xam ne dañ leen koy jébbal laaj ba mooy ndax ancien président gënta neex président las yéen kaay naan kon bu leen fàtte ni OMS xamle na ni hépatite mi ngi faat lu toll ci ñetti junni ak juróomi téeméeri doomu aadama bés bu yàlla saak ak lu mën a mbokk yi ñaan jàmm te